nga jéem ko ñun nag comme dañuy liggéey ak askan wi ci mbirum gerte gi ah ñu ñëwoon rek ci district bu Tivaouane bi fekk fii euh, médecin bi euh, ak préfet bi ñu jébbale lii nga xam ne si mooy suñu contribution ci département de Tivaouane nga xam ni buñ ko dee xayma nekk na téeméeri kees yi saabu ak juróom fukk ak ñeent fukki kees yi javel madaar euh, ak juróomi kees yi gel alco euh, al donc loolu nag buñ koy xayma valeur un million la loolu nag dañ ko contribuer rek parce que ci dëkk bi lañu bokk ci département bi lañ juddoo fi la ñu yaroo yàlla def président woote ni na ci ñëpp jàpp ca ni ñu ko defee fii noonu la ñu ko defee département de Mbour noonu la ko defee département de Foundiougne partout département yi nga xam ngi fay liggéey dañu fay def action yooyu kon euh, euh, monsieur le préfet ak monsieur le médecin chef ñu ngi lay ziare bu baax ci di xam ni lii ñu indi tey xem nañ ko euh, suñu sañoon mu ëpp fii waaye ah ñun ñëpp kenn ku ne lu man rek mu def ko ci mbir mi ba nga xam ni daañu vaincre maladie bi may ñaan nag population yëpp. ñu jëfe ndigali docteur yi lépp li nga xam ni consigne la yoo xam ni médecins yi joxe nañ ko euh, technicien de santé yi joxe nañ ko na ko ñëpp topp distance yi masque yi euh, raxasu bi lépp nañ ko def ndax booloo rek am solidarité mooy tax ñu mën ko gañe donc dégg naa benn technicien mu wax ni euh, d'accord li ñu hospitalisé di leen faj am na solo mais prévention bi am na solo moy fexe ba bu mu law kon nak ñun ñëpp nañ ci japp ba nga xamni ni bi du law jërë jëf. donc bonjour c'est docteur Pape Ibrahima Camara je suis médecin chef du district sanitaire de Tivaouane. d'accord donc asalaamaaleykum donc ñi ngi teew tay pour euh, recevoir benn don bo xamni doomu dëkk bi mo koy joxé muy monsieur Modou Fall nga xamni ni na yëngatu lu jëm ci centre de santé bi donc du tay rek la ko def.

mesures yi def nañu seeni efficacité ñëpp fi ñu toll nii war nañu góorgóorlu ci loolu mesures yi ma del ma dellu si ci bi ci njëkk ndax wax nañ ko virus bi du circuler du demal boppam nit ñi ñoo koy yóbbu donc bi ci gën a am solo mooy ñuy respecter distanciation sociale yi mooy ku ci nekk muy xaw a may sa bopp sa moroom rek un mètre suñuy wax leneen li mooy ñu moytu joxe joxe loxo te su fekkee loolu am na ñuy faral di raxasu régulièrement ak ndox ak saabu su fekkee nekk nga bërëb boo xam ni loolu mënul nekk nga utiliser gel hydroalcoolique beneen mesure bi mooy ñi nga xam ni dañuy sëqët wala ñu socc ñuy su fekkee dañuy sëqët wala ñuy tisooli ñu utiliser mouchoir suñ ci paree ñu sànni ko ci mbalet bi raxas seen loxo ndox ak saabu wala aussi ñu utiliser seen euh, loxo ñu mën a tissu li ci biir wala benn morceau rek comme ça après ñu sànni ko yooyu daal mesures yi mooy mesures yi nga xam ni moo ëpp solo yoo xam ni suñ ko defee dinañu aar suñu bopp aar ñi ñu nekkal ci feebar bi jërë jërëjëf